dama bëggoon fàttali ñett yëf bi ci njëkk mooy code de l'environnement projet projet bi ñu jox 255 articles amendement wu sunu yi def 25 articles de touché xanaa koy ku def ne nañ amélioré 25 articles sur 255 articles nangu nangu ngan ni liggéey bu am solo def nañ loolu am solo trop ñaar amoon na fi ay projet de loi yoo xam ne bi ñu leen indee fii dañuy def ay amendement di ko discuter bay xaaju guddi c'est la vivacité parlementaire ñett ñun député yi ay député lañu gouvernement bi gouvernement la tey nga ni ñiy liggéey bi nañ liggéey bi ñu war a liggéey liggéey bu mucc ayib waaw wante léegi nag ñun nañuy liggéey liggéey bu mucc ayib suñu wàll sinon on supprime l'Assemblée nationale j'en reviens à cet amendement moo tax l'amendement que sur sur l'article 69 dafa fekki amendement bi ñu proposé woon sur l'article 5 sur les principes moi j'étais étonné quand dans les principes ñu proposé nañu dugal ñu ne leen dugal leen fa subsidiarité techniciens yi fi nekk experts yëpp xam nañu c'est un principe très fort sur la sur la question écologique ñu avons leen dugal leen fa principe de prévention quand kanam kenn mënu ko weddi la preuve boo ñëwee ci art 69 foofu on parle de principe mais beaucoup plus spécifique à la question des déchets qu'est-ce qu'on a proposé ñu ne un leen dindi principe de prévention nga def un principe général sur les questions environnementales jël leen principe de subsidiarité qui est très proche de la proximité fii def nañ ci principe de proximité mais on ne l'a même pas défini qu'est-ce que c'est que le principe de proximité là on a dit prenez le principe de subsidiarité qui est plus puissant que le principe de proximité définir le n'oubliez que ko principe généraux Là, lan moo le principe responsabilité élargie des producteurs on nga fait, fële fait, fi ba fait, ci ñaari fait, sur les principes généraux qu'est-ce qui reste ce qu'on appelle vous appelez la hiérarchie sur les modes de traitement Tu vois, il y a kuy def qui ci à bi on peut dépasser même le cadre de principe à ce niveau. Qu'est-ce qu'on a proposé La gestion écologiquement rationnelle des déchets obéit à la hiérarchie des... que c'est un principe auquel il faut, s'inspirer. Ça doit obéir à ça. Obéir à la hiérarchie des modes de traitement consistant à privilégier dans l'ordre la réutilisation, le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination. Maintenant, le meilleur déchet c'est celui qui n'est pas produit Donc bi am ci déchet. dañ il faut s'inspirer à ce principe comme loolu loolu rek moo fa des ci ñent ñi loolu rek fa parce que bu ma jëlee présent prévention teg que ci principe généraux yi englobe tout ce qui est environnement Je jël subsidiarité bu gën a fort proximité mu dugal ko définir parce que cette fois-ci on a défini que le principe de hiérarchie tous les autres principes ne sont pas définis ici sur l'article su la sonn xanaa sax ne di ngeen wax nañ ko définir wala non non jarul définir non non baax na non mais quand même li ñuy wax nii doy tappale de yi mbirum xam-xam xam-xam moo koy réglé de waaw ñu ne léegi ñaar principe am na benn principe responsable élargie am na ci ñaar yëpp généraux ak spécifique ñaar ñii nañ ko yóbbu yóbbu mu nekk généraux mu des lan hiérarchie hiérarchie ñu reformuler ne bu leen ko def sax principe na nekk obéit à la hiérarchie des modes de traitement Madame, bala nga déchet Vous on produire Bon, vous ba vous produire la nga produire ñu bëgg utiliser l'arco. ko vous pouvez vous nga dem utiliser ko le pouvez def loolu ne vous ko recycler vous plastique recycler ne valoriser vous énergie dañ def nga éliminer dama ni moo tax bi ngeen daa bi ñu bi ñu rejeté définition yi mu tiit ci définition yi xam nga lan lañ ci yokk ñun sur la question de la valorisation des déchets tout le texte ne parle que d'enfouissement d'élimination mais la la valorisation des déchets dama ni do waxu waxantuma de allez man fii waxantuma fi ci déchets déchets, déchets, nag déchet nag dinaa math teacher collect